salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan fii ci Kéwoulo TV ñu amaat mbégte rek jàkkaarloo waat ak yéen ci waxtu wi saa yu jote rek suñu xel dem ci ki nga xamante ni mooy Serigne Fallou Dramé ñuy am mbégte loolu di loon ko dëgtal saa su nekk ngir mu mën a waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni mooy wàllu xam-xam ci wàllu feebar yeeg mbir yi nga xamante ni moom mooy dal nit ñi te duñu xam lu leen ko teg ci li nga xamante ni moom mooy situation politique bi nga xamante moo xew ci réew mi te suñu borom defal ko ci tawféex loolu salaamaaleykum Serigne Fallou. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa man wala wa ala alihi wa sahbihi ajmain fa radiallahu taala an il abdil qadimi riddan yasmulul ala wa sawil mahabba waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Fallou ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di nuyu itam mbokk yi nga xam ne ñu ñuy seetaan yëpp ak fu ñu mën di nekk moo xam ci biir réew mi moo xam ci bitim réew di ñaan itam rek wuy jaaxle yi ak lu mën di sabab seen jaaxle yal na yàlla defal leen tawfeex ba saafara seen i jaaxle incha allah bañ mën a dellu ci seen i njaboot di itam yàlla rek mu def dal ci niñ koy ñaanee waxtu wu nekk ak jàmm ak gu yaatu ci biir réew mi waaye itam def ko ci bitim réew incha allah bisimilah. Sëriñ Fallou ginnaaw kàddu yi nuyoo Sëriñ Fallou fi ñu njëkk a dugg yow mooy ci wàllu euh, li nga xamante ni moom mooy xew ci réew mi bu ñuy ñëw ci réew mi nag tey dañuy ñëw ci yow ak yow ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall bërki démb ku nekk dégg na ko muy dal muy dal ci li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux bi mu ne am na ci ñoo xam ne dañ ciy nekk di saaga kilifa yeeg di def lu kenn xamul te ñooñu yoon mën naa mën naa dal ci seen kaw lan ngay wax ci loolu. waaw li mu ci njëkk a wax de mooy mooy saaga moom du lu kenn di rafetlu ak fu mën di bàyyeekoo waaye def naa it li ëpp solo mooy jéem a xam sabab si lan la xam nga yàlla dafa wax ne ci alquran ci fukkeelu saar bi def naa ci la ko wax te mooy bopp aay fukkeelu saar bi ci alquran boo ne mu sab si bii ne bay ne saalika laa ilaha ulay wala ha ulay ba mu jeex yaa ngi ciy teg laa yuhibullaahu jaara bi soo i minal xawli ilaa man dulima c'est-à-dire yàlla dafa wax ne yàlla bëggul nit kuy béral lu ñaaw muy lu mel ni saaga kàddu ñaaw di ko yëkkati jëmee ko fenn loolu yàlla bëggu ko bu waxee yàlla bëggu ko nag ça veut ko kon mooy yàlla da koo tere waaye nag dafa am lu ca yàlla teg ilaa man dulima lu dul koo xam ne dañ ko tooñ façon bu nga xam ne mënul baale te gis na ne lii mooy méthode bi mu am pour pour loolu nag tekkul na dama encouragé loolu waaye lu mën di xew mooy au lieu ñaawlu loolu rek yem ci moo jéem a seet nag lan mooy cause bi ñiy saaga ci internet bi lan moo tax ñiy saaga boo ko xamee itam xam ngi rek doyul mais ñi jéem ci taxaw saafara ko ndax defe naa ne képp kuy taxaw ci internet bi di saaga rek dëgg-dëgg am nga lu la naqari li la naqari nag mën naa am danga nga amul foo mën a exprimer sa sa naqar boobu ci manifesté wu ak yu mel noonu bu fekkee dañu def ba yooyu yëpp nag dañ ko interdire daanaka nga xam ne nit ñi dañu xaw a dañ dañ fu ñu romb romb ay takk der nga xam ne dëkk bi dañ ko terroriser te loolu lépp état moo ko def sasim su ko defee loolu nag nit ki moom li ko naqari gisul fenn fu mu ko mën a faje lu dul taxaw ci ginnaaw ay écran di saaga ay nit donte ni ma ko waxee duñu ko encouragé waaye moom Macky la ci popam defe naa ne loolu bu dee saafara wi du jógee ci moom wala boog nga xam ne moom dina changer métode ndax li tax mooy gis nañu fi nit ku ñu xam ci wax lu ñaaw doon ko jëmalee ci moom ginnaaw ki ñëpp gis nañu mu génn ak moom ci écran ci vidéo dégg nga photo ak moom yu mel noonu xam nga loolu bu fekkee dañ na kii mën naa am boo doon xool ñi saaga mën nga de mooy seen président ndax moo ci dàq saaga moo ci dàq wax lu ñaaw yow en tant que président de la république nga jiite lu mel ni institution bu toll nii nga taxaw ku mel noonu di photo ak moom su boobaa yow sa peuple maanaam ñi nga jiite yow ban image nga bëgg a transmettre nga nga leen bëgg wan su boobaa loolu dangay dem ba ñoom say kàddu yow dootul am valeur dëgg dootul am dara lu mu pose ci ñoom booy wax dañ jàpp ne benn waaye bu bu bu bu bu ñu baal ma ci kàddu gi benn waay bu jëmul fenn rek mooy wax te kàddoom mu ngi bëgg a yegg foofu Macky Sall fu mu ne daanaka parole amatul ko boo xam ne bu ko waxee dëgg dëgg dina am jeexit ni nga xamee yeneen yeneen yeneen yeneen leader politique yi am nañ ko nga xam ne bu ñu waxee nit ñi déglu leen la wax itam ñu jëfee ko donc kon moom it euh, balaa mu naan nit ñi nañu bàyyi saaga yi na delluwaat ci bopp moom itam xool ni muy doxalee moom itam bu baax. Mhm. sëñ Fallou loolu am na solo ñu bañ cee xaabaabal ndax li gën a ñor loolu mooy li nga xamante ni moom la suñu borom def ci yow muy wàllu xam-xam sëñ Fallou dañuy njëkk ak yow ci bunt bi nga xamante ni mooy buntu euh, seet seet ak. Euh, listixaar la wala du waaw defin wi dina wuute waaye lañuy joxe résultant mën naa doon benn mais nag defin wi foofu rek la ñuy am wuute bu dee listixaara baat bi baatub arab la mu ngi jógee ci istaxaara yastaxiru al istixaara mooy masdar mi ci ñi jàng sarfu ñi jàng naxu daañ xam loolu al istixaara mooy masdar mi al istixaara li mi tekki rek mooy tànnloo tànnloo dara dafa teew ci sa xel te xamoo gën na wala gënul wala nga bëgg a dugg ci dara te xamoo gën na wala gënul nga ne yàlla maa ngi lay tànnloo maa ngi lay tànnloo nga wax ma ndax li gën na ci man wala gënul ci man nga xam ne mag ñi nag boobu la ñu ëppoon lu ñu jëfandikoo attaque bu ñu naan taalif téere sax da gis ne dañuy def fanaanu listixaaru xool ba xam ni ñu bëgg téere bi mel pour yàlla wan leen ko ngir ñu mën ko defee noonu nga xam ñoom seen lépp lépp lu ñu dugg rek dañ ko daan seet te loolu yonent bi moo ko jàngale yonent bi moo wax ne nit balaa dugg ci soxna ni ko seet nit balaa sanc cib kër na ko xool waaye tam nit balaa dugg ci waruwaay na ko xool boobu na xay na ay gilam ak yu mel noonu ñoo amoon ak i fas waaye léegi mën nga ne mooy oto kon yooyu yëpp ak yu dul yooyu itam lu ci nit di dugg da ko war a xool léegi nag mag ñi nee naa moom li ñu gënoon a doyloo te di ko gën a jëfandikoo lu bari moom moo di al istixaara l' istixaara mooy tànnloo defin wi nag mooy ni ko yonent bi jàngalee nga su ko defee ak ñaan nga muy àndal nga ñaan ko daal di tëdd nag su ko defee yow la nga xam ne moo nekk sa kumpa te nga bëgg koo xam su boobaa yàlla dina la ci wan lu leer ci yow nga xam ne di nga xam na nag nga ciy doxee bu fekkee gën na nga xam yàlla dina la ko leeralal bu gënut yàlla dina la ko wan su fekkee dina gën waaye am na sarax yooyu def mu door a gën su boobaa itam sarax yooyu dañ la ko wan su boobaa loolu mooy solo si listixaara dégg nga kon boobu mooy listixaara moom fanaanu lay doon kon da gis ne Euh, listixaara benn la ci seet bi nga wax nag maay fi ñu koy jëfandikoo bu fekkee ne nit kii dafa am aajo bu teew boo xam ne aajo bu jàmp laa ko mën a tuddee xëy na waa ji aajo bi léegi la bëgg a xam lan la yitt bi ko dab léegi la bëgg a xam yitt bi naka la ciy doxee moo xam tukki la moo xam mbiru kayit yu muy lijjanti moo xam lu mu mën di doon seet moom day lu am solo day lu mënul ñàkk nga xam ne nit ki bu wootee sax di ñaan lu ak lu mën di doon duñu ko ñaanal ñun te seetaluñ ko ndax seet mooy buntub ñaan mooy tax nga xam nit ki fan nga koy jaarele ndax ci ngay mën a xamee tabiam ci ngay mën a xamee biddiwam te yooyu yëpp boo ko xamee ci ngay xam nag wan yoon ngay jaare moom pour pour ñaanal ko beneen bi nga xam ne nag mooy ndax lii nga koy ñaanal dina gën ci moom wala déet itam loolu lépp itam seet bi moom moo koy génnee waaye daal kon listixaara mooy bi ma njëkk wax seet nag mooy li nga xam ne da sukkandiku ci li ñu tuddee xel mu ramb la xam-xam la boo xam ne li tax ñu tuddee ko xam-xamu beeñ bu njëkkoon mag ñi ci suuf lañ ko daan rëdd buñ ko dee jëfandikoo loolu moo indi tur bi nga xam ne xam-xam bu wér la day seet bu wér boo xam ne lu mu wax du dañ su fekkee nit ki xam na ko xamin wu wóor nga xam ne mu ngi jógee ci yonentu yàlla Idris sax ci xaddis itam lu koy dëgëral ci ne lu ñu nangu la léegi nag xam-xam boobu fi ñu koy jëfandikoo rek mooy bu fekkee ni nit kii li ko li mu bëgg xam léegi la ko bëgg a xam su baa ngay jëfandikoo xam-xam boobu mooy seet googu may waxta mooy xel mu ram kon ñaar yooyu rek mooy yi nga xam ne ñun moom la ñuy jëfandikoo donte am na yeneen yu ñu gëstu ba xam ko waaye ñaar yi daal mooy yi nga xam ne moom la ñuy la ñuy jëfandikoo voilà mhm. mhm. ndax ñu bari damay dégg léeg-léeg ñu ne seet dafa araam ci ban ci ban anam ak ci ban fànn seet mënul araam nag fooguma ko waxuma na araam sax waaye day warteef ndax luñ ne yonent bi moo ko moo ko digle rek loolu te yonent bi yàlla dafa wax ne ittabi'u llaah wa atii'u rasuula na ngeen topp yàlla waaye na topp yonent bi nga xam ne sa topp yàlla balaa mën a wér faw da koy boole topp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kon lu yonent bi digle da ngay defe ne da ngay jàpp ne kon yàlla moo ko digle ci boppam wa ma ataakum rasulu faqshuhu wa ma nahakum anhu fantuhu lépp lu leen yonent bi indil lépp lu mu leen digal def leen ko waaye lépp lu mu leen tere bàyyi leen ko te yonent bi terewul seet ndax indi naa la exemple ci ñetti yooyu te mooy soxna muy waay muy kër muy dëkkuwaay yooyu yëpp yonent bi moo wax ne bu ngeen ciy dugg neen ko seet loolu nag su boobaa dafa def li ñu tuddee yonent bi dafa def ñu tuddee itlaaxul xaas maa iradatul al amma ñi jàng balaaxa daañu xam loolu may wax mooy da tudd lenn fekk lépp nga ci jublu contraire bi it mën naa am nga tudd lépp fekk lenn li nga ci jublu donc loolu la yonent bi jëfandikoo foofu kon seet wax ma la araam sax waaye day waru teef day waru gar ndax boo tëbee tëb dëggu ci mbir fekk seetoo ko mën naa am mbir moomu gënul ci yow nga dugg ci jëlee ci ak loru jëlee ci ak laago jëlee ci ay cër dem jëlee ci sa alal ju dem jëlee sa njaboot goo ñàkk jëlee ci jëlee ci kon dangay gis ne mbir moom mu seetoon ko ba xam ne lii gënul ci yow nga annière loolu moo gënoon nekk farata ci nga ciy dugg noonu te seetoo ko te su boobaa di nga lor sa bopp moo xam soxna la wala lu mu mën di doon am na koo xam ne jafe-jafe yi ko yi ko dal mooy dafa dugg ci soxna soo xam ne seetul ko te fekk na soxna si gënul ci moom soxna si tenji ko mooy day faatu kon seetoon ko bañeen ci dugg continuer ak dundam moo gënoon am na koo xam ne jafe-jafe bi ko indi mooy soxna si mu takk te seetul ko parce que soxna si dafa dëppoo noo xam ne bu bu ci duggee problème bi mooy moom du am yokkute ci genn wet fa mu ko fekkoon foofu rek lay taxaw dégg nga wala boog dañuy conflit conflit mooy di jàppante di xuloo guddeeg bëccëg ñi di leen àtte wala boog ñàkk am njaboot wala wala wala yu dul jeex moom waxuma la araam waaye day farata moom day waru gar daal. jërëjëf jërëjëf Serigne Fallou Darame loolu am na solo loolu bu ñu jugee foofu Serigne Fallou dafay am lu tuuti rek lu ma ciy ñambaas muy bunt bi nga mujjee jamono jii dañoo seetlu ne diggante daaw jéeg ak daaw ak ren li fi tas ci ay sëy bari na loolu te sëy yoo xamante ni buñ koy takkee léegi du mat weer du mat ñaari weer du mat ñetti weer maanaam daanaka keroog wax nañu ne daanaka booy xool Sénégal. fanweeri sëy yoo mën a jël fu ak juróom yëpp dañuy tas ci diir bu gàtt loolu lan nga yaakaar ne moo koy waral. sabab yi bari la xam nga lenn li mooy day dellu ci li ma waxoon amaana nit ki seen ñàkk ànd yi seen biddiw biddiw lañ koy tuddee waaye du biddiw nag ci wàllu xam-xam duñ ko tuddee biddiw waaye mooy tabixa rek nature am na nature yoo xam ne mënuñu composé ñaar ñu bu ñu sëyee faw dañuy tàqali ko mën nañ të tëddee noo xam ne sëy bi day tàqali maam day tas. mooy ci li ma doon wax ci xam-xam boobu maanaam sëy bi alaa kulli tas moom mooy du dem ndax jafe yi leen di ëpp doole ba dootuñ ko mën a muñ su ko defee kii may baat kii maye baat wala kii ñaan baat waaye alaa tas dina waaw bu fekkee ne dafa dellu ci tabia mooy nature boobaa man xaw ma ci solution moom waaw boobaa xaw ma ci solution bu fekkee ne nature la bu fekkee dafa dellu ci nag wàllu li nga xam ne moom mooy seetu sëy bi nga xam ne def nit la moom maanaam nit a gis ñaar ñii di sëy mu bañ seen diggante woy mu yóbbu leen ci defkat buy tax tàqale am wala sax mën naa bañ yóbbu leen ci tàqalekat sax waaye di yàq seen xel dem ci kii jaxase dem ci kii jaxase su boobaa loolu itam day yàq ndax xam nañ ne xam-xam boobu te mooy yàq diggante xaaroot ak maarootu ñoo ko fi indiwoon yu alimaani naa si siira fam na fu mu wax ne duñu du ñu leen jàngal lu dul ñu ñu wax la ne ah lii ñi lay jàngalkat baaxul boo ko xamee di ko jëfee boo faatu da ngay tabbi tabbi sawara ñoom daañ la wax loolu boo ko bëggee nag jàngal la ko xam-xam boobu nag ba tey mu ngi fi indamaa noonu fitnatin falaa takfura ñun ay fitna lañ ci nit ñi ndax wax na dëgg fitna lañ ndax ñoo xam da ngay fekk ñaan ñu ànd nga tàqale leen kooku fitna la waaye ñoom daal ba lañ la koy jàngal daañ la ko wax léegi na xam-xam boobu ba tey mu ngi fii ay nit a nga koy jëfandikoo di yàq ay diggante di dofloo ay nit di di di def yu bare bari kon loolu benn la ci waaye itam leen mën na cee am mooy wàllu rab wàllu rab mën na cee laxasu kon li ma bëgg wax rek mooy cause yu koy sabab moom yu baree baree bari bari la waaye nag lu ñu ci xam ne lii la su boobaa lu ñuy mën a dindi la allah. am naa yaakaar ne leer na ci ñi nga xamante ne ñu ngi toog ñu dégloo ñu jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Serigne Fallou Dramé suñu boroom defal ko taw tawféex mu am mbir yu bari yoo xamante ni suñu borom xamal na ko ko jëm ci doomu aadama yi Serigne Fallou bu ñu jugee foofu dañuy ñëw ci wàllu ngóora ndax sonal na nit ñi loolu fi mu toll surtout ndaw ñi maanaam ndaw ñi moom loolu moom li ma ko jàmbat ci ay ndaw moo ëpp ci ay mag waaye e, ndaw ñi xam nga dañuy bari lu ñuy fo waaw fo mu bari mi dina ko waral fo mu bari mi dañuy fo lu baree bari moo xam foowee sa awra moo xam fu ne nga bëgg fa fu ne nga bëgg ku ne nga bëgg xam nu mu mel loolu it baaxul nag baaxul ndax booy def pax moo jot dugal ci sa loxo di nga dugal pax sa loxo ci pax jaan màtt la lu mat a bàyyi xel la am na jigéen ñoo xam ne boo leen xasee tëddee dootoo nekk góor te seeni kilifa ci def loolu ci ñoom loolu day am mën naa bañ a doon seen kilifa waaye nit ki moo doon nit koo xam ne boo doon essayé pour jéem a séq ak moom yàlla def na ci moom loo xam ne boo ko forcé ba def ko itam doo nekk góor yëpp day am moo tax nag il faut faire attention ci côté googu euh, maanaam nit ñi nañ yar seen bopp nañ yar seen bopp wax waxuma sax araamal gi ko yàlla araamal waaye ci nite dong dafa am loo xam nit war na ko war na ko jomb daal kon loolu benn la ci euh, ñaareel bi rab dina ko waral nag waaw rab dina téye nit euh, def na am na signe yu ma ciy faral di joxe ki nga xam ne par exemple dafa yor soxnaam yegg ci léeg-léeg bu soxna si di waaj pour ñu war a séq sax balaa soxna si pare moom mu yegg nga xam ne du mën a séq ak moom pénétration du mën a am benn yoon su boobaa signes yooyu lu bari boo boo gisee rek xamal na rab moo ko waral waaye lu lu mu ci mën di am bu fekkee ne xool nañ ko ba xam lan mooy sabab ci mu fexe ba am sunu garab yi nga xam ne yàgg naa koo wane xam ne bii benn la ci yàgg naa koo wane lu baree bari bii nag du faj maam du faj mooy du traité définitivement ba mu jeex yàgg naa ko wane lii mooy loo xam ne da nga koy jëfandikoo boo ko jëfandikoowee da ngay mën a yëg sa bopp léegi euh, sa sa sàkkara am puissance maanaam mu dëgër tal ba noppi nga bañ a gaaw a daanu loolu mooy solo si maanaam loo xam ne jooni jooni la booy léewatoo nga koy nga koy jëfandikoo donc voilà gaaw a yegg gi surtout waaw waaye moom loolu lay loolu lay jëriñ nga xam ne moom dala koy jox léegi su ko defee booy waaj a nga jëfandikoo ko moo lay tax sa sàkkara bi dëgër ba noppi doo gaaw yegg loolu la loolu lay jariñ waaye nag fajul ba mu wér fajul fajul maanaam fajul daal loolu tam ñu xam ko bii faj nag moom mooy butéel bi butéel bi mu fi yàgg wane nga xam ne jamono yi dafa dafa jeexagum waaye ñu ngi koy ñu ngi koy liggéey fii ak suba dina dina dina noppi waa mooy butéel bi yéeme bi nga xam ne wax naa ne lii baas bi lii saba lii solo si mooy day faj néew doole néew kàttan lay faj waaye dafay fajaale yeneen lu mel ni el seex ak yu mel noonu ñi nga xam dañuy seere wala bu ñu lekk muy xarees ak ndexi si tubaab voilà yooyu yëpp da koy da koy traité donc loolu moom mooy mooy solo si butéel la bu am ndoxu bi dafa sonal nit ñi xam nga am na ñoo xam ne seen am na ñoo xam ne seen tëli ndoxu siti moo leen koy jox wala wala wala hémorroïde yooyu yëpp day téye day téye góor day yegg foofu day téye téye téye ngóor ak nit ki ba nga xam ne dootul amati doole pour mën a sëy loolu lépp ay jafe la donc voilà yi ñu ciy jot daal ci ay njàmbat bari na waaye képp ku yàlla dogal ba mu yegsi ci ñun képp ku yàlla dogal ba mu jot sunu garab yi bu ko jëfandikoo moom leneen lay jàmbat waaye du doonati néew doole léegi na su ko defee ñaar yooyu mooy am bu dee butéel bi moom dalay dalay traitement la maam dalay faj ba nga wér da koy jël di sa bopp ndànk ndànk mu di ko delloo si di ko delloo si di ko delloo ba nga yëg sa bopp nga xam ne day tax mu tal day tax itam siddit yi nga xam ne da doon men lu dee ndax siddit yi léeg-léeg da yegg foofu du mën a am doole taawu taawu sexe bi loolu problème mu dee su ko defee surtout ñi nga xam dañuy foowee seen awra loolu seen sid bi day dem ba mel noonu di ko foowee ak seen loxo donc loolu tam ñu bàyyi ci xel walla léegi nag bu fekkee ne nag rab da cee laxasu balaañ koy jox butéel bi dañ koy jox ay cangat yu muy sangoo ba noppi door ko jox butéel bi voilà hmm. mooy mooy solo si voilà. loolu am amati na solo sëñ Fallou bu ñu jugee ci wàllu ngóora tënk nañ ci wàllu rab tënk nañ ci it euh, lu baree bari bu ñu jugee foofu dañuy ñëw ci ñu bari dama leen di dégg ñuy jàmbat di wax ne man lu ma yaakaar mu tas damaa tëju dama amu wala dañ maa liggéey wala wala wala wala yoo loolu lan moo koy waral comme nit yaakaar dara te mënu cee jot wala suñ ko ko waxee buñ ko appelé bis ne ko di nga ci jot bis boobu bu ñëwee du ci jot wala su ci defee du ko gis waa sabab yi moom lu mën a bari la am na ci sabab boobu boobu nag nit ki ni mu bindoo day dellu ci tabixam bi tabixam li ñu tuddee nature képp koo xam ne naturam xoolal nañ ko ko moo tax nit ñi nañ nañu xool lu na natiir lu am solo la di xoolu lu seeni sarax lu am solo la képp koo xam ne na natiiram sawara la safara koo xam ne natiiram safara la kooku yaakaaram day tas lu bare bare bare bare bépp xéwal bu muy jot lu koy bett lay doon lépp lu mu yaakaar moom beew mu génnee ci xelam bu fekkee nit ki xool na tabiaxam ñu ne ko sa tabiaxa sawara la kon nañ jàpp boobu bu baax boobu benn la na ci gaaw taxaw ci kon kon boobu benn ci sababi la am na koo xam ne nag àq yi mu yoreel nit ñi dong nga ko tëj kese du leneen tooñ tooñ lu mu tay wala yu mu kii waa àq yi mu yoreel waa mu ko yooyu yëpp ay àq la yoreel nit ñi ay àq lekk alalu kii trompé yi yu mel noonu baaxul day topp nit day topp nit ndax nit yàlla da ko fonk da ko teral teraanga joo xam ne yàlla mu bëgg luy bëtt nit waaw ndax teraanga ji mu ko jox kon nag loolu ñu bàyyi ko xel loolu itam benn la kon muy ñaar bi ko ñetteel nag mën naa doon cat xam nga day jàpp nit. wax naa ne sëñ bu mag bi muslu na ci ci xasida gi mu tuddee di te sëñ Tuubaa lépp lu mu muslu rek c'est que loolu lu danger la lu ñu war a bàyyi xel loolu lu dangereux la. bu demee ba naan okun muhsin lana min sharri si hasadin mahsari fammin ayu ayu gémmiñ gémmiñ ki làmmiñ la ci jublu làmmiñ baax la caa teg wa sarayin ak ayu bët donc ñaar yooyu dañu am tooke xam nga jamono yonent am lu tuddee almihiyaan mooy koo xëy na boobu jamono nit na amoon nañ temps mën ko xàmme mais léegi jamono ni mu bindoo loolu mu ne su ko xàmme dégg nga kon di di fexe ba loolu itam ngay sangu cat ak yooyu nit dina yor alal ju baree bari bari Seex Fàllu xëy xëy rek lépp yàqu te cat dong la maanaam cat moom lu dansé te nit ñi xeeb ko bëri na lu muy gàllankoor ay nit dégg loolu ñu bàyyi ci xel waaye itam rab dina indi yaakaar buy tas nit jinne dina ko jàpp di ko yàqal ci njabootam di ko yàqal ci wér-gu-yaramam di ko yàqal ci alalam donc yëpp ay cause la ay sabab la waaye nag bu mu ci mën di doon seet gi mooy génne ban ci mooy sa gàllankoor ci yooyu incha allahu taala ñu jox la ci lañ la ca jox nga sangoo ko nga jëfandikoo ko bu fekkee dafa laaj sarax itam nga ñu waxaale la sarax yi nga génne ko incha allahu taala su boobaa da ngay continuer sa yoon di am na nga daan amee te a yaakaar dootul tas benn yoon incha allah. jërëjëf Serigne Fallou Darame mbokk yi ba tey ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam keroog ba tey bi nga wanee sa alluwa xànjar gi ci télé bi ba léegi nit ñi mayu ñu ma jàmm ci alluwa ji de moo rek rek rek rek leen lu bare bare bare bari ci ci ay sëy rek leen lu bare bari ci ay sëy maam ñu bare bari it ñi nga xam ne seeni doom da leen a tëxoon jékki-jékki rek fàq wala yu mel noonu daal wala nekki nekk ku terrible koo xam ne mënoo ci moom dara moom alawa ji rek la seeni seeni jafe-jafe ak seeni njàqare alawa ji ci wàllu noob lañ koy jëfandikoo xam nga dèjà lii ma bind ci niir ab xaatim la gis nga ko ma wërale ci ñaari turu yàlla yaa xakiimu yaa wudoodu donc moom laa wërale xaatim bi baat yi ma wërale ko nag moom laay siikar moom laa war a siikar léegi nag boo dugalee aaju bi ci biir xam dama dama ko effacé aaju bi ngay dugal fii ci biir dégg nga maanaam turu nit ki ngay dugal fii bu fekkee kuy nopp soxnaam la wala kuy nopp borom këram la turu soxna si wala turu borom kër gi moom la ñuy dugal ci baytul xaal gi mooy kër gi ci digg bi nga xam dafa widd dara nekkul fi foofu lañ koy dugal léegi nag wird yi ñeenti fan lay doon saa yu ñu ko waree wird dañu booyal ànd daal di jël alwa ji teg ko nii ci kaw ànd bi di wird ñaari tur ma lay wax am na lim buñ koy liggéey bu ñu paree teggi teg bu subaa ñu defaat ñeenti fan bu ko amee nob bi day jàpp bu fekkee kuy tasxiir la tasxiir mooy ku ñëw ne man de sama doom daf maa déggulul day juyee ak ci lu bari yu noonu dafa nekk ci lu ko neex day jëli alali jàmbur yi day taxawaalu day naan day nangam day nàngam su boobaa itam alwa ji la ñu jëfandikoo ngir régler problème am donc voilà loolu moom mooy mooy solo si waaw waaw moo tax waaw <laughs> waaw moom tubaarikàlla moom moom loolu lay jëriñ waaw moo tax waaw waa jaaro bi jaaro <laughs> bi moom li fi nekkoon lépp jeex na sax euh, moom nit ñi dañ koo soxla dañ koy dañ koy jël lu bari da gis sax ko am ku ko jël maam lu dem toll ci une semaine jëlal ko ku mu yéene jëlal ko ku mu yéene rek mooy ku mel ne rakkam wala ku mel noonu jëlal ko même bu fekkee kooku mënul ko sax danaa ko xaaral ma wutal la ci jaaro yi ngir bëgg ko dindi ci situation yi mu nekk képp ku nekk situation jafe-jafe di am dara muy dem am am jafe la wala nga bëgg kaaraange jaaro bi boo xasee ba am ko ba takk ko alaa kulli haal sa jafe-jafe yooyu moom jeex na takk-takk ci àddina moom jaaro bii nag liggéey bi xaw naa métti waaye kuñ ku liggéeyal ba jox la ko ba nga takk ko une semaine yàlla <laughs> maanaam di nga yëg ci sa bopp ci wàllu soppeeku ci wërsëg loo xam ne moom lu la bett lay doon lool lool lool ci ñett yooyu muy waa mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. xaw ma poobar lu mu doon. waaw waaw sungub bi xam naa nag li ci ne moo tax mu xaw a mel lu ñuul nii moo tax mu xaw a mel lu ñuul sunguf la sunguf bi nag dafa am aaya alquran boobu di wajaxaltuloo maalan mamduudan nga xam ne ci alal lay dox am na lim buñ koy bind. bu ko defee am na garab gu ñuy wut bu ñu wutee xob yi ba noppi sàjj ko weer ko ba mu wow dégg nga ñu jël aaye alxuraan bii ñu bindoon saafara si lañu jël gaasee ko ko moom lañ ko gaasee weeraat ko ba mu wow su ko defee xam nga sunguf la mais kii bi lañ ko gaasee alxuraan ji lañ ko gaasee su ko defee am na cuuraay bi muy àndal moo tax gis mu mel lu ñuul ni ñu boole yëpp nag dëbb ko mu nekk sunguf bii nga xam ne moom ci wàllu ubbeeku lay dox ubbeekoom nag dinaa ci leeral dara maa boo xam ne boo ko day jël da gis waaye boo ko jëlatul day day taxaw waaw loolu ñuy wax xamu leer waaw maanaam jamono yi nga koy jëlee moom da ngay gis bu baax maam da ngay am alal bu baax waaye bu jeexee rek foofu la yëf yi di yem maanaam mbiru jooni jooni la daal waaw àpp la gis léegi waaw saa yoo xëyee jëfandikoo ko daal sur na boobu moom di am xaalis bu bari wala semaine bi nga koy jëfandikoo semaine boobu di nga am xaalis bu bari voilà mu ngoog voilà bi mooy def gis léegi waaw léegi nag bu jeexee rek nag jeex na waaw boo ko amaatul maanaam fekkee moom rek ci nga basé woon foofu lay foofu lay sëy kii yem waa voilà voilà donc loolu mooy solo si voilà hmm, hmm, hmm, waaw tàggatoo bi daanaka mooy lii ma tijji woon rek maa ngi ñaan yàlla bu baax mu def jàmm ak dal ci sunu réew def itam teraanga ju yaatoo yaatu waaye itam def fi dal booy jaaxle itam ak lu mën di sabab seen jaaxle rek maa ngi ñaan yàlla incha allah mu di li seen jaaxle incha allah di leen sant di leen gërëm bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi téléspectateurs yi jërë ngeen jëf kaddu yooyu moo nekkoon kaddu yi nga xamante ni moom la Serigne Fallou Mbacke moom la Serigne dara Dramé doon ñu indil tey jii ci Kéwoulo ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon incha allah.